mbokk yi insha allah ñu ngi war a jël tey ay 94 ci li nga xam ne moom mooy suuratu tawba ci suñu borom di waxe ni yactaziruuna ilaykum ida rajactum ilayhim <clears throat> alhamdulilahi rabi alalamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي نيجي سانت سني سبحانه وتعالى من ورسغلات نو داجيتي تير بروم بي فسيني كو جانغ نكا يونتي عليه الصلاه والسلام دون بيغلاتي ca wax it ay ngëneel yoo xam ne nii ngëneel yu màgg la lool ñu ñaan suñu ndaw ñi ngalawaay seen temps nañ koy jagleel jàng seen diine ngalawaay nañu xam ni yàlla bi mu ñu indi ci kaw suuf dañoo indi rek ngir ñu jaamu ko jaamu googu munte nekk lu dul dañ koo jàng soo demee université téeméeri branche nga fa mi ngi noonu ñee ca médecine ñee ca économie ñee ca philosophie ñee ca langue kasa wa kasa ji it naka noonu fokk da ngeen jël seen temps jagleel ko seen diine ngeen moytu politique internationale bi nga xam ni bañ ko tëralee yàgg na depuis le protocole des sages de Sion ñoo xalaat yahudi ngir not àdduna bi fokk ñu tasaare am fo ne ndaw ñi te la nga xam ne mooy seen warugar loole ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax rawatina li nga xam ne mooy moyen ba ca gën a am solo li nga xam ne muy football ña nga yi def ñoom lañ jël teg ci kaw ñëpp nga dégg dañuy fay ko ay milliards ñu jël ci peuple yi noonoo ci ay rayante di ci am yu kenn xamul ngallaawaay yow ndawal julit bàyyil xel looy def sa temps ña nga xam ne ñooy li toppatoo wàllu football yooyu ñu ngi ni match bi passé diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire duré na trois heures de temps am déet trois heures de temps de vingt heures à vingt trois heures yow ndawal julit trois heures de temps ñaata xadis nga ci mën a jàng ñaata ay nga mën a jàng si téere borom ñaata bunti xam-xam nga ci mën a nafar su ko defee nga la waay ndawal jullit xamal lan mooy priorité football même bu baaxoon du priorité xoolal lii priorité priorité mooy priorité diine priorité jàng sa diine kon yal na yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci njaboot gi yépp tey mooy euh, fukkeelu fan ak juróom-ñeent te dañuy tuddee euh, weeru rajab sunu maam yi di ko tuddee weeru ko euh, weeru nuñ koy ndeyu koor mu tombeeg la 31 ci janvier te la nga xam ne mooy 2024 su Ousmane Cheikh Ousmane pare mu jël ñu suñu bind bu jëkk يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني نافقي دي يعتذرون إليكم daañ ñëw di joxe ay ngant ay excuse ci jëme ci yéen iza rajaatum ilayhim heure bu ngeen delloo ca ñoom jóge ci xare Tabuk qul la taataziru lan nu'mina lakum waaye nee leen bu leen joxe benn ngant duñ len gëm ba faw qad nabba'ana allahu min axbaarikum yàlla xabaare nañu yalla xamal nañu la nga xam ne mooy seen xabaar wa sa yara allahu amalakum wa rasulu xel sa naa gis yàlla seeni jëf moom ak yenentam suma turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaada gannaaw ba daañu leen delloo ci ki nga xam ne moo xam kumpa xam lépp loo xam ne lu feeñ da fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun mu xabaara leen lépp lu ngeen nekkoon di ko def sa yaxlifuuna billahi lakum xal sañoo nekk di waat ci yàlla ñeel leen isan xalabatum ilayhim heure bu ngeen dëppee dellu ci ñoom li tuuridu anhum njëree ngeen dummóoyu leen bañ leen waxati dara fa aridu anhum dummóoyu leen bay leen leen innahum rijis ñoom duñu dara lu dul sobe rek wa ma'waahum jahannam seen wàccuwaay mooy jahannama jazaa'an bima kaanu yaksibuun loolu nekk pay ca lañ nekkoon di ko faggu yaxlifuuna lakum li tardaw anhum ñu ngi waat ñeel leen ngir ngeen gërëm leen fa in tardaw anhum su ngeen leen gërëmee it fa inna allaha la yarda an il qawmi alfasiqin yàlla day du gërëm mukk la nga xam ne mooy xeet yoo xam ne dañooy génn topp mi ngi noonu bokk jullit ñu ngi nekk ci saar bi nga xam ni moom mën nañ ko tudde suratul munafiqin moom it doonte ne nii euh, li ci yàlla di détaillé la ci ëpp mooy mbiru naafiq yi xam leen ne nit ñi ñetti lañu jullit boo xam ni li nekk ci xolam ci ngëm moom lay feeñal ci ay jëfam yal na yàlla boolañu ci moo am beneen mbooloo boo xam ne ay yéeféer lañu ñoom li ñu gëm la ñuy feeñal ñëpp xam nañ ñi ay yéefér lañu mu am nag beneen mbooloo bu gën a compliqué te loolu mooy naafiq naafiq bi nga xam ne kéeféri nekk ci biir xolom waaye muy woon julli ñu ne man ci yéen laa bokk suñu boroom mu ne <coughs> ñoom ñooy noon yi dëgg <coughs> te mooy jullit xamal ne sa noon dëgg dëgg dëgg mooy am naafiq lu tax loolu mooy ñoom dañuy jaxasoog yow xam sa biir xam sa biti xam sa lépp donte ne naafiq ñaar la <clears throat> koo xam ne daa jóge ca kéeféer ga ñëw ne gëm na fekk ne gëmul ak koo xam ne jullit la woon mën na am Muhammad la tudd papa mag yaay ay jullit lañu mu gis ay intérêt bàyyi diine lislaam dem ànd ak yéeféer yi ci biir <clears throat> te loolu mi ngi gën dal suñ ndaw yi nga xam ne franc-maçonnerie da leen a këf ñu mel noonu nag ñoo gën a nekk danger rawatina ci jeunesse bi ndax dañuy am ay moyens am ay pexe yàqal la sa diine doon lu yomb lool xoolal sahabatul kiram ñu waroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bi yonent bi dem ghazwat Uhud Abdullah ibnu Ubay ak naafiq yi mu àndaloon <coughs> influence nañu ceeru armée bi dëpp leen delloo leen Madina mille la yonent bi génne woon ñetti téeméer yépp fexe nañ ba dëpp leen madina ndax fa la yem suñu borom mën a déedéet iz hamma taifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma am na sax yeneen ñaari giir yu naroon a dëpp ànd ak ñoom dul ne yàlla moo leen dëgëral loolee kon galawaay ndawal julit xoolal koy àndal xoolal ki lay woo ca lam lay woo lu mu doon loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax naafiq yooyu suñu borom nee na su ngeen jógee xasata tàbboog ñëw daañ daje ak yéen ngante bu nañu jox leen ko waaye nee leen seen ngànt yi duñ leen ko mën a gëmal mukk ndax yàlla xamal nañu seen xabaar <coughs> ca loolu it mbokk jullit daa war a doon ko ñor moo tax yu yonent bi alayhi salaam ni laa yuldaxul mu'min fi lxujuri maratayn benn pax jullit duñ ko te màtt ñaari yoon jullit da war a ñor ba képp koo xam ne nii ah, gis nga ci moom ab warkat la lal ay warkat la nga moytu ay mbiram moo tax ñu ne ko duñ leen gëm mukk tubaab bi li muy doy waar doy waar nee na menteur n'est jamais écouté même quand il dit la vérité <laughs> mais donc ab fenkat boo ko gëmal dara fenkat rek la jeex na ñun de yàlla xabaare nañu wàcce na ay aaya xam leen na ay naa naafiq ngeen léegi nag wax ju jaru ko liggéey leen yàlla dana gis seen jëf wa sayarallahu amalakum su ngeen tuubee yàlla dana ko xam su ngeen continuer ci kéefër yàlla dana ko xam te bu ñu demee yowmal qiyaama du ñun ngeen amal affaire yàlla ngeen amal affaire am déet yowmal qiyaama yàlla ngeen amal affaire te loolu it mbokk dangay gis ne <clears throat> yonent bi alayhi salaam nee na dañ indi waaju dépensé woon alalam ci yoonu yàlla indi ko jihaatoon ba dee ci yoonu yàlla borom xam xam bu jang li ñi ci yoonu yalla ñom ñetti ñepp yo laaj leen li ngeen doon def lu ngeen ci jublu woon ñu ne ah liñ ci jublu woon de moy ngeureumal yalla yalla ki malaakam aduna da ngeen di fen inter aduna do ngeen ci jublu woon am ngeen ko te yobul leen sawar kon yalla moy ki xam kumpa ca lorit motax ba suñu borom di dana waxat ci kanam mu ne dañu waati yalla ñeel leen gis nga sa yahlifun ba ñuy dal saar bi wax naa la ni yàlla nettali na ci juróom-ñaari waat yoo xam ne naafiqi waat nañ ko ci biir saar bi juróom-ñaari yoon sa yaxlifuun yaxlifuun sa yaxlifuun yaxlifuun juróom-ñaari yoon waat nañ ko ci saar bi ca daama li ñuy lal ci kéefir mi ngi seen xol pour bañ nit ñi xam ko lu ñuy wax rek waat lañ koy waxee looloo tax képp koy jëf leen teen ñaari baat yu ne billaay walaay taalaay yi moytu ko wala tute kulla xallaafin mahin képp koo xam sax di waat moytu ko gis ngeen ñoom day ñu ngi waat ci yéen ngiree ngeen dummóoyu leen borom bi mu ne dummóoyu leen leen ndax ñoom sobe lañu te mbokk sobe bi gën a nekk sobe mooy am naa fiq akub yéeféer sobe gi ñu nekk sobe du ne sobe yaram masalan boo nuyu woon ab yéeféer wala seeni ñaq sax jaxasoo taxul ñu ne ab sobe la ba bala ngaa julli danga koy raxas waaye sobe xol moo nekk ci ñoom innamal mushrikuuna najas suñu borom mu ne bokkaalikat yi najas la sobe lañu naafiqi it najas la ñu sobe lañu te mooy sobe bi gën a bon ci sobe mooy xol bu sobewu gis ngeen xol boo xam ne xol bu sobewu naka noonu it lu bon rek moo mën a génne ci ñoom innahum rijis sobe nañu seen wàccuwaay mooy sawara ci li nga xam ne nekkoon nañ ko di ko faggu bokkoon na ci loolu dañ doon waat ñeel leen ngir ngeen gërëm leen waaye yéen naafiq yi xam leen ni su leen yenente yàlla bi gërëmee julit ñépp gërëm leen yàlla moom du gërëm koo xam ne daa génnug topp te loolu it mbokk julit niñ koy waxe woon sànq galla waay nañu xam ne kenn rek lañu amal affaire mi suñu borom jàlla wa ala doomu aadama man ngaa nax ku nekk yonent yàlla nuux ma nga ne ak yonent yàlla lu wut lu wax seen soxna yi kanata tahta abdayni min ibadina salihayn fa fa khanatahuma gis nga yonent yàlla nuux mille ans woote na ko teewul jabaram waroon na ko jabar jaa nga ànd ak moom rek mel ni julit ndekete naafiq la ci yàlla luut naka noonu jabar jaa ngi ko rek ànd ak moom di wax ndekete naafiq la lu luut am ci xabaar mu roccee ko dem wax ko gaa yi ci ci biti kon kenn dong nga munta ndax muy sa borom loolu moo tax ba ñu bëri jàpp nañ ni nu ñu mën a amee alal nañ ko am suñ demee tabax lu melne jakka dem ci señ bi jëndal ko ay auto defal ko ay nangam bu ko defé señ bi gërem la ma ñi nga andal gërem la mbokk ak ku mëna gërem ci yalla gërem la gërem lolu dula jëriñ dara aduna ak biram bu ndaje won gërem la ci fekk lam ne gërem gëremul yalla lalu ko xamal dula jëriñ dara motax borom bi ni yalla nak du gërem ño xamne dañoo doon ño xamne dañu genn top kon mi ngi nonu cheikh ousmane الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم بارك الله فيكم suñu borom jalla wa ala mu ne al a'rabu mooy ña dëkke ca kaw ga أشد كفرا ونفاقا نيوغنا تركيفر نيوغنا ترق نفق وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولي نيوغنا ييت في بني خم لنغا خم نموي أكي ليال رد واتكو تبين انتم والله عليم حكيم يال أجي خم أجي خيرين يلا ومن الأعراب بكنا تكوكو يبتي يبتي may man yattaxisu ma yunfiqu maghrama koo xam ne ma ngay jàpp la muy dépensé ci yoonu yàlla ne ah lii ab impôt la rek la mooy ñàkk lu mu ñàkk sañ def bor buñ ko gàll rek la basu wa yatarabasu bikum dawair ba pare di xaar ci yéen ba pare mi ngi nekk di xaar ci yéen la nga xamee ne mooy wëlbatikuk jamono ay natt bi dal seen kaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mun alayhim da'iratu saw na nek ci na don wulbeutu ko ci ñoom wulbeutu go xamne go ban lay don wallahu samiun alim yàlla muy aji dégg lépp aji xam lépp wa min al arab amna ci kaw kaw ya nak man yu'minu billahi wal yawmil akhir ño xamne gëm nañ yàlla gëm nañ al al-akhira wa yattakhizu ma yunfiq ko ke ma ngay jàpp la nga xamne ma ngay dépenser qurbatin indallah muy loo xam ne aji lu koy jegeel borom la lu koy jegeel ca yàlla la wa salawaati rasul ak ñaan ya nga xam ne yenente bi da ko koy ñaanal donte ne salawat muy julli waa julli googu mooy ñaan ala innaha qurbatun lahum ay waay li am kay loolu dana nekk ak jege ko koy jegel guy gu leen di jegeel ñàll yàlla ñeel leen ndax sa yudxiluhum allahu fi rahmati yàlla dana leen dugal ci yërmandeem inna allaha ghafurur rahim yàlla kuy jéggalaate la ca kuy yërëmaate la mu ngi noonu mbokk <clears throat> suñu borom day wax kaw kaw dañu xam ni bu la yàlla wërsëgalee nga dëkk ci taax yi war nga sant yàlla bu baax yeneen ci yàlla yuusufa gis nañu ba mu jëlee famim ca kaw ga ba indi leen biir Égypte bokk na li mu wax <clears throat> mooy euh, mi ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ma génne ca kaso ba wa jaa bikum min al badawi daa di may wërsëgal ba ma mën leen jële ca kaw ga indi leen lu waral loolu mbokk jullit mooy kaw kaw quatre-vingt-dix pour cent ca kaw kaw ya dañuy diine day tumuranke ci ñoom yàlla musul ni kaw kaw ma arsalna qablaka illa rijalan nuuhi ilayhim min ahli alqura yàlla bu daan yónni ci dëkk yi mag yi lay yónni naka noonu it bako jotaay yi ñu toog yàlla nañ ko yàlla nangul ndax dañ ko gis ci kaw gi tedet am nga dem 99 des villages yi nekk ci kaw gi doo fa gis lu mel ni euh, loolu moo tax ba noka jekk noonu lañ ma samel suñu borom nag ni kaw kaw yi ñoo gën tar kefir, te ñoo gën tarit ni ñuy nekk naafiq ndax ni ñu tumuranke ci diini ñoo gën a yey ci gën a ci bañ a xam lan la yàlla wàcce cib yonentam loole am na histoire bu réelu buñ ci nettali yaakaar nettali naa lu ko fii ne borom xam-xam bu ñuy wax Zayd ibnu Sawxaar euh, mu ngi nekk ci jàkk ji di waaraate yàlla dogal nag dafa doon dem di jihaad bañ dagg benn loxo bi loxo càmmoñ bi muy waaraate ba pare rek benn kaw ko caamin jóg na ko sa waaraati bi daal neex na waaye man daal sa loxo bi ñu dagg moom moo ma jaaxal say mbir mu ne ko waaw sama loxo bi dagg loo loo la ci jaax ah damaa di ku sàcc dañuy dagg loxoom loxo bi lu ko dagg <laughs> yaa ngi mu ne ko ah xanaa gisoo loxo càmmoñ bi lañ dagg ah mu ne man xaw ma ndeyjoor ak càmmoñ buñ ciy dàgg mu ne ko yàlla wax na dëgg <laughs> ndax yàlla nee na kaw kaw ñoo gën a ñàkk xam lu ay yàlla wàcce ci tam gis ngeen jamono mbokk ku sàcc sa loxo ndeyjoor la ñuy dagg kon boo gisee loxo càmmoñ bi dagg dafa war a xam ne di accident la loolu mi ngi noonu su ko defee it noonu la demee ba nga xamee ni nii Bilal Thiam mi mi ngi may nettali benn dëkk boo xam ni donte ne nee la fa dëkk bari na waaye nag ca kaw ga la rek benn sërëm bu fa doon sëy nee na ba mu fa demee buy jàpp di dugg ca wanag wi ndax bu ñu la gisee ngay jàpp ci ëtt bi ñu ne waaw jéeg bu tonneew di jàpp mi ngi noonu jéeg buy jàpp ko julli mooy da ngay gaaf ji am maa muuru nag moom xée xée beneen affaire la waaw oustaz Tafsir Gassama weer yi passé la gaañu yal na yàlla jégal ko yërëm ko euh, fi ma dëkk ci Kër Madaro ñu nettali ne ay soxnaam dañuy muuru benn góor jóge ca àll ba ñëw fekk ñu toog ñu muuru mu ne xëy ay waay jëtur yi ay xale lañu ndax ñoom kuñ gis ngay muuru rek si jëkkër daa dee daa di kot kot ndeysaan jër ñeenti dërëm sànni leen ndax jàpp ne dañuy tënji <laughs> loo loolee kon mbokk dañuy dañuy gis ni suñu borom loolu la wax la ëpp ci kaw kaw yu noonu lañ mel waaye nag ay yow mi déglu suñu borom mu ne ñoo gën a yey ci ñu ñàkk xam atte yàlla ndax yow xam nga atte yàlla yow mi dëkk ci taax yi am occasion mën a jàng sa diine ndax jàng sa diine ba xam ko loolee mbokk lu jar a wax la de rawatina yéen ñi dëkk Dakar rawatina yéen ñi dëkk parcelle te waaye ragal leen yàlla te mooy suñu borom yàlla lim fi ubbi ci bunti xam-xam néew na nga am foo ko mën a am. ci góor ñi ak ci jigéen ñi yépp loolu xéewalug yàlla la goo xam ne yàlla da leen ko laaj yowmal qiyaama su ko defee ay di dix ans quinze ans ci gannaaw xatta fii def na ci benn wax di wax rek diine bi am parce nag ñoom donte na ñoom beneen côté lañ koy gisee l'islam l'islam radical kaza wa kaza kon heure boo dëkkee yàlla may la occasion yàgg sa njaboot ngeen am fu ngeen mën a dem la waay mën faa jàng sa diine ngalla waay dem fa jàng sa gars yi dañu jóge fi dem ba arena ngir làmb am ñu jóge fii dem ba Bercy ca France ngir musique am dem feneen dem feneen nga la way fexeel sa sa ci ñu ñu jàng seen diine loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax góor ak jigéen su ko defee ñu ngi sante yàlla rido bee ngeen gis ay jigéen ñoo fees ca gannaaw ñu sant yàlla ci loolu borom boobu nag subhanahu wa taala ne yàlla mooy ki xam yàlla mooy ki xereñe mu ne boo demee ci kaw kaw yi am na ñoo xam ne lépp lu ñuy indi ci diine ji dañoo jàpp rek li munta ñàkk buñ ko deful ñu yedde leen ndax ay naafiq lañu waaye buñ koy ndiir ñu ngi naan yàlla na yàlla alag leen bi <laughs> nga doon <laughs> boo xon ma leen yàlla na ngeen dee yéen ñëpp <laughs> yàlla alag leen mooy daaira arab buy wax daairatu saw mooy wëlbatiku ak jamono yàlla ne fitna dal ci seen kaw ba ngeen ngeen musul ñu suñu borom nag mu ne mooy aji dégg lépp mooy aji xam lépp jàll waala mo ya di deg lepp xam lepp jallu wa ala lu way di wax wala lu way di jëf xam na lu tax nga jëf ko loy waxit xam na bang kay wax lu mu doon donte ne mbok julit yalla yemele wul dara suñu borom bam ngagne ahlul kitab ba fa lu mu wax moy laysu laysu sawa yemu ñu de yahudi li ñi bon bam yemu ñu de am ca ño xamni gëm nañu yàlla gëm yeneen ci yàlla kaza wa kaza naka noonu dañ naan kaw kaw de manière général quatre-vingt-dix pour cent ci kaw xamuñu lu bari ci diine waaye nag suñu boroom mu ne am na ci nag ñoo xam ne ci kaw kaw ya ñoo xam ne day gëm nañu yàlla gëm yonent yàlla te loolu it ay du néew a néew la waaye am na dëkk yoo xam ne da ngay fonk seen diine taxawu seen diine ah naka li suñu borom gërëme te it la nga xam ne moom la ñuy jël di défense di joxe ci yàlla yépp luñ ca bëgg mooy jege seen borom nga xamal ne mbokk julit lépp loo xam ne jaamu yàlla goy def daf lay jegeel yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sama benn jaam du ma jege lu mel ni li ma faratal ci moom waaye du dañ nag di ma jéem a jege ci naafile ba mu bëgg ko loolee bokk na ci loo xam ne duy mën a jegeel jaam bi boroomam mooy alal ji nga yor nga jël ci di ko joxe te yàlla yàlla subhanahu wa taala tax li ngi noonu sunu classe yi ñuy bëgg a tabax ci jàkka ji am na benn mbokk ci ñun mboolem matériel bi da ngay gis ne jënd na ko yal na yàlla barkeel ko tabaxal ko ay kër ci àjjana loolee mbokk da ngay gis ne loolu rek lay jëriñ wallaay alal ji lépp loo ci sàkk lu dul sa ngërëmal borom perte nga ko loo sàkku ci sa alal lu dul sa ngërëmal perte nga ndax loolu rek nga ci am leneen lu dul loolu imaa nga lekk ko mu jeex wala nga bàyyi ko fi ñeneen donn ko jeex na su ko defee ñu bàyyi xel loolu loolu day borom bi subhanahu wa taala nee na ñu lañu doon joxe lu dul ngërëmal yàlla ak it yeneen bi ñaanal leen te it loolu mbokk da ngay gis dañ ko jàng ci dars bi ñëw àllarba bi di ñëw suñu borom mu ne ñaanal leen salli alayhim ca mbokk képp koo xam ne def na lu baax jëriñu dañ ko war a ñaanal képp ko def lu baax ju dañ ko war a ñaanal rawatina na kam ko defal looloo tax ba borom xam-xam yi dañu naan bu benn ngëneel nekkul woon ci sarax yàlla wax ko ci alquran wala yonent bi wax ko ci alquran waaye nga defal nit ki teraanga mu ne la jazakallahu xayran rek jaroon na sarxe am déet ndax jazakallahu xayran mooy li nga ma defal yàlla na yàlla defal lu gën lu gën loolu waajoo nga ko tabaxal nga ko kër jëndal nga ko oto defal nga ko lu nekk mën na la jazakallahu xayran mooy li nga ko defal li nga ma defal yàlla na yàlla defal lu gën loolu li muy am am pexe yàlla ko fi pexe am déet li muy am am sañ-sañ yàlla ko sañ-sañ kon wa wa ñoom day ñi ngi ñëw di joxe seen alal ngir am ngërëmal borom ngir it nga ñaanal leen mi ngi leen ngir nga ñaanal leen borom bi nee na danaa leen nangul loolu day mu nekk jege gu muñ guñ may jege te danaa leen dugal ci sama yërmande te it xam leen ne mbokk julit amul kenn koy tabbi àjjana ci jëfam lu dul yàlla tey dolli yërmande xatta yu mu yàlla yónni yàlla yu mu yàlla ne xatta man sama jëf dugaluma àjjana lu dul yàlla tey dolli yërmandeem yàlla mooy jéggale mooy yërëmaate yàlla na yàlla jéggal ñu yërëm ñu fi dunya wal axira والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرد يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم بارك الله فيكم سنة بروم جل وعلا مني والسابقون الأولون نغا nga xam ne day ñoo jiitu woon ca wal ci ñi nga xam na ñoo gàddaayoon ak waa ansaar yi leen dimbali woon teeru leen walladina taba'uuhum bi ihsaan ak ña nga xam ne ñoo leen topp ci njëkk radiyallahu anhum wa radu anh ñoom day yàlla gërëm na leen te ñoom it gërëm nañ ñeel yàlla wa a'adda lahum jannatin يلا نجلين واجل أدنى يو خمني تجري تحتها الأنهار مغي دو تسوفم أي خالدين فيها أبدا دان فسخ بفو من نونو تجنى يوي ذلك الفوز العظيم لولي دي موي تخبي مغ وممن حو وممن حولكم من الاعراب منافقون امنا تشلن ور تشكاو اي نافق ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق am na ci waa madina it ñoo xam ne ñu nga sax ca seen naafiq ga laa taalamuhum nahnu naalamuhum yow nag yonent bi xamoo leen waaye man yàlla xam na naa leen sa nuazibuhum marratayn danaa leen bëggal ñaari yoon summa yuradduuna ila azabin azim gannaaw ba danaa leen delloo ci mbugal moo xam ne mu màgg ma mu sawara wa axaruuna atarafu bi am na ñeneen ñoo xam ne naafiq def nañ bakkar nangu nañ seeni bakkar khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a dañu jaxase ay jëf yu bax ak leneen lu bon asallahu an yatuba alayhim ñoo ñin mën na yàlla mu nangul leen ak tuub inna allaha ghafurur rahim yàlla moy jéggalaté ci moy yërëmaate mi ngi nonu bok suñu borom fa xaj la nga xamné ni moy julit ñi ay mbolo bokk na ci jitu mooy alsaabiquun al awalun min al muhaajirina wal ansaar mooy ña nga xam ne ñoo jiitu ci yonenti yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo fekke woon keroog bi yonenti bi di def sulxu hudaybiya mooy di siñenteeg waa makka ci ñu jàmmoo loolu ma nga amoon ca la nga xam ne nii mooy atum juróom benneel ma ca gàddaay ga ñooñu saxaaba yooyu jiitu woon ci muhajirun ansar ñoom ñoo raw ñeneen ñi nga xam ne dañoo dugg ci diini gannaaw sulhu hudaybiya suñ borom mu ne laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi wa qatal ulayka azamu darajatan min alladina anfaqu min baadu wa qatalu wa kullan waada allahu alxusna ña nga xam ne ñoo jëkk ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ñuy def sulhu hudaybiya nekkoon junni ak ñeenti téeméer wala junni ak juróomi téeméer duñu mën a yem ak ñi ñëw gannaaw ba donte ne ñooñu ànd nañu ak yonent bi xeex mi ngi noonu loolu mbokk lim lay jëkk a jàngal mooy saxaaba yi ñëw ànd ak yonent bi xeex ak xeex ànd ak yonent bi yonent bi alayhi salaam ni mënu leen fexe ba dab ñu jiitu waaw ñi musul gis yonent bi ni ñu defee saxaaba yi loolu mbokk da ngay ciy bàyyi xel bu baax su ko defee dangay gëm nii ñi gën ci euh, ñi yàlla bind gannaaw ay yeneen tam mooy sahabatul kiram sahaaba yooyu buñ leen doon xaaj ña ca gën mooy ñu jëkk a ñëw ñoo ñu jëkk ñëw ña ca gën mooy muhajirin gannaaw ba ansar gannaaw ba nañu xam ne ñooñu ñu leen doon xaajaat bokk ni ña ca gën mooy ñu fekk woon bayatu ridwan comme ni ñu koy waxee gannaaw ba ñu fekke woon xare badr gannaaw ba mooy fukk yooyu yeneen bi alayhi salaam limoon na àjjana lañ jëm gannaaw mooy xulafaawu rashidun mooy ñeenti ka nga xam ne moo leen gën ñoom ñëpp mooy abu bakr radiyallahu anhu lii la jullit ñu war a gëm loolu moo tax ba ñu ñu nga xam ne suñu borom yàlla nee na gërëm na leen waaw gars yi yi na ñëpp ay yéeféer lañu yàlla la ñuy gëm am chia yi lañuy ñuy gëm ah chàkk na yàlla lañuy gëm ñoom rek ñooy ay yéeféer ku leen yéeféer loo yaay yéeféer yàlla moo leen seedal seen gëm ne gërëm naa leen loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee Euh, ñoom day yàlla gërëm na leen ñoom it gërëm nañ ñeel yàlla ca mbokk ab julit dëgg mooy ki gërëm ñeel boroomam ba tax yonente bi alayhi salaam mi ngi wax naan ki xëy daa di ne raditu billahi rabba mi ngi noonu wa bi bil islaami diina wa bi muhammad nabiya daa di seede ne gërëm naa yàlla di sama boroom gërëm lislaam sama diine muhammad di sama yonent bu dee keroog àddina la jëm te mooy gërëm yàlla di sa boroom lu mu dogal ci yow it nga daal di koy gërëm mu ngi noonu gërëm diine yàlla ji li yàlla farataal yépp neex la julli koor azaka lépp neex la nga gërëm ko loolu mbokk mi ngi noonu donte ne radiyallahu anhu xeet bi dañoo dëppoo ci jagleel ko saxaabatul kiram mooy bu ñu waxee diw ñu ne radiyallahu anhu dañuy xam ni kii sahaaba la bu ma sànd ak yonent bi amma keneen ku dul sahaaba lañ naan rahimahullah mooy yàlla na yàlla yërëm ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax léegi nag mbokk bu saxaaba yi passé ana ñan ñooy ña gën mooy lazina taba'uuhum mooy ñi nga xam ne ñoo topp saxaaba yi looloo tax ba mbokk suñu boroom noppaloon nañu iwaay e yi ñuy créé gannaaw saxaaba yëpp jaru ko woon suñu borom nee na ñañ topp saxaaba yi rek yàlla gërëm ñu lazina taba'uhum radi radiyallahu anhum bu ñu toppoon saxaaba yi rek yàlla gërëm ñu looloo tax ba ngeen gis it ay yeneen mbooloo yu tasaaroo ci kaw suuf tudde seen bopp salafu salih lan lañ jublu ci salafu salih mooy ñun day ñi nga xam ne lii bañ ko créé cinq siècles après yonent bi ñi dix siècles après yonent bi ñun day loolu ñun bokkuñu ca ñun daal ña ngay dellu ca la sahaba yi nekkoon loom lañu noonu nga moom la ñuy wax asalafu salih mooy xam ne du ñu jaamoo yàlla lu dul la sahaba yi nekkoon ay alazina tabauhum mooy ñu toppoon muhajirun ak ansar borom bi nee na gërëm naa leen te maa ngi leen di waajal àjjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ci suuf bu ñu fa duggee duñ fa génn ba faw lii rek mooy texe bi gën a màgg ci texe yi loolu ngeen koy waxee daa yi man yéen jeunesse bi njàng mi ak a baax tukki bi ak a lépp lu ngeen kër kër ci àdduna ngir am ci yéene ci lu baax baax na waaye xam leen ne texe bi gën a màgg mooy fexe ba dee dem àjjana de loolu rek mooy texe bi gën a màgg lépp lu dox seen diggante ak yoonu àjjana woon leen ko gannaaw dem bu dee liggéey la bu dee am réew la bu dee lu mu mën a doon lu nar a dox sa diggante ak aljanna xamal ne texe mooy nekk aljanna zalika al fawzul azim borom bi daal di bàyyi loolu dellu siwaat te la nga xam ne mooy kaw kaw ya mu ne day ci li leen wër ci madina bari na ci loolu ay naafiq biir madina it am na ñoo xam ne ñi nga sax seen naafiq ba tey ñu ngi noonu yow yonent bi xamoo leen waaye man yàlla xam naa leen te it jullit day gëm ne kenn rek xam kumpa muy suñu borom jalla wa ala képp koo xam ne day woo te xam ne kumpa boo ko rusul ne ko da ngay kat ci waxoo dëkk boo ko yàlla kumpa yàlla rek ko ko xam loolu tax xatta suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla koy xamal ne ko diw naa fiq la mu doog koo xam waaye xamul woon li nekk ci biir xol yi ndax daana wax at taqwa haahuna ngëm yàlla ragal yàlla ci biir xol la nekk te yonent bi xamul nekk ci biir xol yi mi ngi noonu yàlla nag xamal na ko loolu ba am na benn bis benn ajjuma yonente bi alayhi salaam ñëw na taxaw ci biir xutba ci biir juma ji ay diw naafiq nga génnal diw naafiq nga génnal diw naafiq nga génnal jour boobu omar ibnul Khattab daa tarde juma nee na Omar nee na bi may ñëw ma gis gaa yi génn mu ne bisimilah jàmm julli nañ jumaa ba pare nee na ma làqatu leen pour bañ ñu gis <laughs> bañ ci biir jàkka ji lañ may doog a leeralal seen mbir gis ngeen. ala kulli xaal kon yow xamoo leen waaye man xam naa leen gis ngeen loolu it moo tax ba ab julit moom du jéem a nax kenn fexeel ba lépp looy def rek na yàlla tax. te xam ne loolu rek ca la sa njëriñ nekk ku ne mën nga koo nax waaye mënoo nax la nga xam ne ni moom mooy sa boroom borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne danaa leen bëggal ñaari yoon avant bëggalum àllaaxira bëggal mu jëkk mi ci bi ñuy dund la am na naafiq yi ñu leen ko waxe woon ci dars yi passé ñi gënoon a siiw ci naafiq yi madina yi yàlla da leen a natt woon genre cancer bu ñuy wax dubla boo xam ne dafa commencé woon seen dënn di lekk ba seen digg gannaaw borom bi waxoon na ne ne seen alal ji ak seen doom yi dinaa leen ci bëggal innama yuridullahu an yuazibahum biha dafa bëgg alal ji nekk mbugal ci ñoom doom yi nekk mbugal ci ñoom loolu mooy bi ñuy dund bu ñu duggee biir bàmmeel mbugal yaa nga tar ana nafiq yaa na ak yonente bi alayhi salaam ñu ngi leen di mbugal booba léegi àllaaxira nag ñu doog leen delloo ci la nga xam ne mooy mbugal ba gën a tar mi ngi noonu léegi ñu ngi xasootu Tabuk ba léegi yonent bi ñëw na nafiqi lay nañu mu am nag juróom ñaar ci sahaaba yi bokkoon na ka leen jiite woon abi lu baaba ñoom dañoo def gis na def nañ gaaf bu rëy rëy rëy avant yonent bi ñëw lañ yëg ne def nañ gaaf bu rëy rëy yonent bi joxe ordre ne képp ku mën ñëw ni ñëw ñu dem ci jihaad ba ñoom mënoon nañoo dem ba pare demuñu ñu daal di déggoo dem yee ku nekk ñu yeew la ci benn poto ci poto poto jumaat ku ne ñu yeew la ñu ne daal fii duñ fi jóge xanaa lu dul yàlla mooy indi ak tuub tuubal ñu ku dul yonent bi alayhi salaam du tekki wala fi ñuy dee ba yonent bi jógee ñëw euh, ci jumaa ja gis leen gaa yi ñu ngi leen yeew gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala nag ne am na ci ñoom ñoo xam ne nangu nañu seen bakkaar jaxase nañ jëf ju bon ak jëf ju baax te mooy demuñu ca jihaad ba waaye tuub nañ tuub bu sell boo xam ne suufel nañ seen bopp wone na ñoom ñoo tooñ sey bolu yalla dogal dogal ci ñoom borom bobu na subhanahu wa ta'ala mu ne yalla mu ne ne xel sa ñooñu mën na am yalla subhanahu wa ta'ala jéggal leen ndax yalla kuy jéggalaate la yalla kuy yërëmaate la te alhamdulillah yalla ah, ci mbaxam ci dars yi nara jàng alarba insha allah danañu xamal ni jéggal na leen jëlal ci seen alal loo xamee ni nii moom la ñuy joxe mu compenser frais yi ñu waroon a frais pour dem ci jihaad ba gannaaw ba yàlla subhanahu wa taala jéggal na leen mbokk kon lii ñi ngi ci xeex boobu nga xam ne mooy xasuutu Tabuk xale yi suivre xam nga bi may quatrième épisode am cinquième épisode waaye nañu xam ne épisode bii di ñëw insha allah ñu ngi nar a waxaatee ci ñeneen ñoo xam ne nii ñoom it yeewuñu seen bopp waaye gis nañu la nga xam ne nii taxawaay bu rafet def nañ ko muy kaab ibnu malik murara ibnu rabi ah hilal ibnu umayya yal na yàlla subhanahu wa taala sellal ngëm ci suñ biir xol yal nañu yàlla musul ci nafiq yal nañu boole ak muhajirun ak ansar ci àjjana yu kawe ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal mu ne média yi dañuy wax ne euh, euh, Arabie Saoudite dañoo ubbi ay ay euh, magasin yu jaay sàngara lu tax ustaas yi Sénégal yi waxuñu ci lu tax sëriñu Sénégal yi waxuñu ci <laughs> ah ndax ustaasu Sénégal yi ñoo moom Arabie ndax ustaasu Sénégal yi ñoo moom diine ji loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal information na ba xam ne ñi ngi koy tasaare bokk na it information yi ñuy tasaare ci ni amul benn média saoudien bu génn loolu média bi ko génne benn média bu nekk Liban la ndax mbir la boo xam ne am na am amul loole mbokk da ngay gis ne ah, yàlla moo xam ñaareel moom même même bu doon am na waaw ndax ustaasu Sénégal yi ñoom li ñu li leen li nga xam ne moo ñu itteel mooy lay xew Arabie Saoudite am ñun li ñu itteel suñu réew moo moo moo ñu gën a itteel li nga xam ne daal moo ñu lañ wax bokk julit Sénégal gii kañ nañ fi commencé jaay sangara ndax am na ku ko mos a dénoncé lu tax ñu jaay sangara Sénégal mi ngi noonu am na benn buur benn président ci président yi fi jaaroon am na ay kilifa yu jóge woon Fuuta ñëw ci moom ne ko Fuuta dañ fa commencé ubbi ay baar dañoo bëgg nga dimbali nañu ci mu ne ah loolu man mënu ma ci dara ah loolu il faut ñu créer benn loi assemblée nationale créer daal di voté ne euh, Fouta kenn dafa jaay sàngara kaza wa kaza loolee kon bokk nañu xam ne euh, Arabie Saoudite la nga xamee ne moo fa nekk mooy Makka ak Madina budul Makka ak Madina réew la comme réew yépp réew la moo xam ne jullit bu ne dañ leen war a ñaanal mooy benn réew ci kaw suuf bu wa sharia du Iran du Pakistan du fet benn réew bi attewoo sharia à cent pour cent Arabie saoudite rek la bu fa dara amee ñi dañ ci waroon a lu naqari jullit ñi dañ ko war a naqarlu waaye dañuy gis ñoo xam ne dañ ciy kontaan dañuy kontaan ne Arabie saoudite dérapé nañu mbokk loolu c'est très grave loolu la borom bi subhanahu wa taala wax in tusibukum sayyi'atun hasanatun tasu'uhum mais in bu leen loolu euh, xéewal dalee mu naqar bu ñu gisee neen nattu dana leen ñu kontaan ci loolu waaye daal ci gàttal mbokk julit sàngara araam na mboolem mi borom xam-xam yi nekk Arabie nañ ko mboolem mi ustaas yi nekk Sénégal araamal nañ ko ku xam ku am say wax di ko wax nag loolu yow lu yitteel wallahu subhanahu wa taala naam bismillah naam naam naam naam Euh, ajuma ji euh, euh, xaal li ñuy jëkk wax mooy falilah alhamd bi ñuy wax naan ndaw ñi dañuy déplacé wu di jàng seen diini ñoo am ndekete ki ñu jàkkaar lool ma nga jóge ba Tivaouane Pël yal na yàlla barkeel jéegoom yooyu Euh, muy wax ne dañoo indi seen juma benn néew bi ñuy indee néew bi ci juma bi nag ñu ne euh, borom këram chrétien la woon ala kulli xaal li ñuy seet mooy ndax moom julit la woon wala du julit su dee ne julit la woon ñu ne xam ne mi ngi doon sëy sëy bu xaram mais sëy bu xaram boobu yit du tax ñu ne yéefir la ba kenn du ko julli donte ne mbokk li may wax rek kaw kaw yi xamuñu diine gis naa benn xale chrétien boo xam ne nii daanaa ko liggéeyloo sax. jabar ji chrétien jabar ji judit la moom demee seen dëkk ñu may ko ko inna lillahi inna ilayhi rajo lu na det naaw ci moom pour mu tuub ba tey tuubul gis ngeen loole kon ñu xam ne euh, lu grave la sëy bu xaraam la islam sax tuddewu ko sëy mooy ànd bu xaraam la mooy doomu jullit kenn du ko may am maa nag bu ci nekkee ba dee it maadaama moom mi ngi doon wane ne jullit la mi ngi doon julli dotee bu dee jullit ñi ñoom daañ ko jël defal ko lu ñu defal julit yóbbu ko ci armée de julit yëpp bàyyi ak boromam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam bismillah naam amin nak ñun ñëpp yeen question de ndaw bismillah bismillah wa bismillah deuxième bi mooy bay ma wax ko baax ko ko xol ci la heure ci ci dégg nga damay tagal quoi نعم. جزاك جزاك الله خيرا على كل حال مناسب ما يجي لك ين جاكي آه، امام يدي نيتي سلمل فا بن غان بو نيوي في ميغي جوغي فرانس نيوي نيوي في آه، آه، من ناكو سختدو كي ملين دي وقت توجور ني sunu jumaa ji bi mu paree moo ko jëkk a peinture yal na yàlla yërëm nga fa mu tëdd euh, benn doomam dafa jóge France mu ñëw fii am na ay ay village yi mu dal am ñaa fa am fu ma jaar mu ñëw fi jële si tesbar fan yi passé bi ñu julee ba pare mu ne depuis mon arrivée au Sénégal c'est la premier fois que j'ai complètement <laughs> yaa ngi dégg <laughs> mais mais xam nga loolu loolu mbokk c'est très grave c'est très grave ala kulli xaal suñu mbokki imaam yi moom li ñuy ñaan rek yàlla defal ñu tawfeex defal leen ko mas naa julli benn juma ci benn quartier ci Dakar bëgguma tooñ bi ñu jullee takkusaan laa fi julli waaye rek julli caay mi nii ngeen xam ne taf taf taf taf bi ñu paree mën ne imaam ah imaam xam naa yow doo bàyyi xel de moom di gis naa mag ñoo xam ne bi ngay jóg yow di taxaw ñoom dañuy yéex a jóg donc fi ngay ruko fi ñuy joge tax ak suñu ruko presque ben la xamna bo leen doon mëna may day mëna wax xam nga nak julli mo wuré su ko yagal ndax julli sa xel wurtu dem ci dara da nga wara profito nga ni lo ci man gis ngeen ala kulli hal mbok lolu ci shaytan la joge da ngay gis ño xamne buñ joge seen kër duggu jakk mën nañ fa def 1 heure de temps 1 heure de temps buñ jullee ba pare dajaloo lañ fay def plus d'une heure de temps am ma julli gi bu matee 3 minutes 4 minutes bari na bokk loolu ci seytaane la jógee loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal yow daal war ngaa fexe mottali sa taaye ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na sa taaye ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen ñaan yee ca tegu nag nga sëlmal boo paree ñaan ko gannaaw julli waaye bu imaam matalul taayaamit yow da ngay matal la xam ne mooy sa taaye am na ñaareelu laaj bi moy say wax waxtee fir nafiq man damay tit nam borom xam-xam yi dañ nan amul kenn ku xelam di dal ci nafiq lu dul nafiq ya nga deg moy julli toujours da fay ragal ba man ak nafiq ne ko ci man ba ba nga dejek sa borom wax nañ ki fi ay yon abi mulayka ne na dajana ak fanweri sahaba kep ci ñom lim no ragal yàlla bu de yàlla ak nafiq yalla yàlla musal ñu ci nafiq musal ci mbokk bépp julit mbokk mi ngi nonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain